Baye Ngañ Cheikh Baye Ngañ nag sëriñu lasraar bu yàlla baaxal la sëriñ bi nag lépp lu muy liggéey ci alxuraan la koy liggéeye maanaam alxuraan lay jëfandikoo waaye yàlla may na ko lool ci wàllu seet listixaar nopp sëriñ bi tamit yàlla may na ko lool ci wàllu kayit rawatina sunu mbokk yi nekk ci bitim réew ba ci sunu mbokk yi nga xam ne ci armée bi lañu nekk ñooñee tamit am na lu mu leen waajal muy yére bii ngeen di gis képp ku jokkoo ak moom ba mu jox la ca ay xabaar ba nga jëfandikoo ding ca am lu kawe sa njortu waaye sëriñ bi tamit jaaru yi ngeen di gis daf koy liggéey mu nekk ay kaaraange yu baax lool ba ci ndombo gii ngeen di gis Cheikh Baye Ngagne nee na ma ndombo gii daf ci liggéey liggéey bu doy waar lool waaye sëriñ bi tamit dina yëngu ci wàllu kubbeekaay ak musluwaay ndax nit kat bu ubbeekoo day wut lu ko musal sëriñ Cheikh Baye Ngagne nekk sëriñu lasraar bu yàlla baaxal képp ku bëgg a jokkoo ak moom nag ni ngay def yomb na danga koy woo ci numéro yi may waaja lim 77 586 38 53 77 586 38 53 beneen bi di 78

képp ku jokkoog moom yal na sa aajo faju ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Sénégal bi tudd Cheikh Kansar moom nag ma ngay góolu ci troisième division bu Espagne waxoon nañu leen fi ne dafa dundu racisme foofee ca Espagne maanaam bot di konte ci xeet club ba mu nekk tudd Rayo Majadahonda dañ doon jàkkaarloo ak Sesto mu jàppante ak supporteru Sesto yi ndax dañu ko doon wax wàllu golongaak yu ken xamul ngeen bal ma ci kàddu gi mu mer lool supporteru Sesto yi moom mi di Cheikh Kansar loolee nag taxoon na match boobee yeggale wuñu ko ligue bi nag maanaam ñi ëmb footballub Espagne muy waa ligue bi tranché nañu maanaam àtte nañu jël nañu ay daan teg ko ci ndodd doomu Sénégal bi muy ñaari match yoo xam ne du ko góolu ak clubam boobee waaye laaj nañu ko ab xaalis xaalis boobee mi ngi toll ci six cent euros six cent euros nag bu ñu ko calculer ci xaalis dina mat trois cent quatre-vingt-dix mille francs daan yooyee la ñu teg doomu Sénégal bi tudd Cheikh Sarr Kane di football ca troisième division bu Espagne daan yooyee nag li ko waral moo di da doon jàppante ak supporteru Sesto yi bu dee waa Sesto ñoom teg nañu leen ay daan daan yi moo di ñaari match yoo xam ne dañu koy football à huis clos maanaam benn supporter du teew ca stade ba waaye nag am na xaalis bu ca toftalu toll ci six mille euros loolee la waa Sesto war a jox ñi ëmb footballub Espagne loole nag sabab bi moo di jàppante gi nga xam ne doomu Sénégal bi tudd Cheikh Sarr jàppante woon na ko ak seeni supporter waaye club bi doomu Sénégal bi nekk tudd Rayo Mahada Honda ñoom it nee nañu du ñu def benn appel maanaam du ñu ñaan waa bi ngir ñu wàññi daan yi nga xam ne moom la ñu teg doomu Sénégal bi amal nañu ca communiqué officialiser ko siiwal ko nee nañu duñu defagum benn appel ñu jugee ci doomu Sénégal boobee di Cheikh Kansar ak daan yooyee ñu teg ci ndoddam jël doomu Congo bi tudd Mbemba moom nag ma ngay football ca Olympique bu Marseille keroog dimanche Marseille da doon jàkkaarloo ak Paris ca Vélodrome match boobee nag doomu Congo bi yeggali wu ko woon ndax ab blessure blessure boobee nag tiitaloon na lool waa Olympique bu Marseille bu ñu sukkandikoo ci RMC la ñu ca doon tiit moo ëpp fuuf la ca am ndax ajuma bi ñu dëgmal olympique bu Marseille dañuy jàkkaarloo ak Lille RMC nee na doomu RD Congo bii di Mbemba mën naa bokk ca match boobee doxal ndax jamono ji mi ngi yëg tan bu baax ñu jugee ci Mbemba waaye match bi doon dox ci diggante Olympique bu Marseille ak Paris duñu ko génn gu match boobee doomu Brésil bi ñu naan Lucas Beraldo yeggaliwu ko li ko waral moo di dafa am ab carton rouge ca match boobee teg nañu ko ay dan nag muy ñi ëmb Ligue 1 France dan yi moo di ñaari match yoo xam ne du ko football soxal Ligue 1 France muy doomu Brésil bi di Lucas Beraldo li ko waral nag moo di carton rouge bi nga xam ne am na ko ci classique bi nga xam ne France gépp ko doon xaar mu doon dox ci diggante olympique bu Marseille ak Paris ci fàttali Paris moo am ndam ñaari bal ci dara ñu jugee ci Lucas Beraldo ak xibaaram bu naqari dem ca waa Bayer Leverkusen ñoom nag saison bi ñu nekk kenn mënul leen a téye tey jii dañu ko firndeel demi-finale coupe d'Allemagne lañ doon jongante Düsseldorf lañ doon jàkkaarlool duma ko ñeenti bal ci dara ñoom nag saison bi ñu nekk li ñu jongante ci ay match mi ngi toll ci quarante ñeent fukki match muñal ku ñu dóoru dañuy def ak yow match nul ñoom waa Bayer Leverkusen ànd ak Xabi Alonso saison bi ñu nekk kenn mënul leen a téye qualifié nañu nag ci final coupe d'Allemagne bi club bi ñuy jàkkaarlool ca final ba ma nga ca deuxième division bu Allemagne ñu naan ko Bundesliga 2 club boobe mi ngi tudd na ñoom la waa Bayer Leverkusen di jàkkaarlool ca final coupe d'Allemagne ba jamono ji nag ñoo ngi ci jaloore quarante match jongante nañu ko dégguñu muñal maanaam amuñu ca benn defet ñu jugee ci waa Bayer Leverkusen ak seeni jaloore dem ca waa Liverpool ñoom nag ki leen di tàggat di Jürgen Klopp dëggal na tey jii doomu Espagne bi tudd Stéphane Bajcetic mi amoon blessure wér na dooraat na entraînement yi nànk-nànk semaine bii ñu dëgmal sax dina dooraat entraînement collectif yi ngir match yii di ñëw mu bokk ca jàppale leen ñoom waa Liverpool loolee nag Jürgen Klopp mi leen di tàggat moo ko dëggal jugee ci Stéphane Bicetic ak xibaaram bu neex waaye Liverpool googee duñu ko génn gum dañuy jël doomu Espagne bi di Thiago Alcantara moom nag ak lu mën di xew saison bi ñu nekk bu jeexee day jugee ci Liverpool kontraam day jeex tàkk waaye waa Liverpool duñu ko yokku Relevo nee na moom mii nag saison bi ñu nekk moo ko dese foofee ca Liverpool bu jeexee day wutiwaat beneen club moom cago Alcantara ñu jugee ci Thiago Alcantara ak waa Liverpool jël doomu Angleterre bii di Kyle Walker moom nag bokkam ci match bi war a dox ci diggante Real de Madrid ak Manchester City wóoragul loole ki ko dëggal mooy Pep Guardiola nee na waxtaan na ak médecin yi médecin yi li ñu ko xamal moo di file ak ngay jàkkaarloo ak Real de Madrid Kyle Walker mënu fee wér ba bokku ca match boobee Pep laa moo xam le loolu waaye nee na man de mbiru Kyle Walker moom dama ciy teey lool dina bokk am du bokk moom loolee bu match bi dooree laa ci xam dara ndax Kyle Walker dafa wuute ak jour yu bari mën nañoo dem ba match bi des ñaari fan mu noppi à cent pour cent bokk ca match boobee doxal waaye jamono ji moom médecin yi maanaam docteur yi li ñu le moo di mënu fee wér ci diggante bi ba bokk ca match boobee waaye mbir moomee toppal dara du leen ci ump incha allah ñu jugee ci Kyle Walker ak waa Manchester City ak seenu xabaar bu naqari dem ca waa Barcelone xibaar bii nag neex na ndax am na supporteru Barcelone yu doon tiit Robert Lewandowski bañ a bokk ci classico bi waaye dina ca bokk ndax kat bi Barcelone di jàkkaarloo ak Las Palmas dafa amoon carton jaune ca match boobee ñëpp nag li ñu waxoon moo di moo ko tey mën nañu ko teg ay daan kenn tegu ko ay daan benn match képp lay toog moom Robert Lewandowski bu Barcelone di jàkkaarloo ak Cadiz match boobee du ca bokk waaye classico bi moom dina ca bokk doxal moom Robert Lewandowski. ñu jugee ci Robert Lewandowski ak waa Barcelone ak seenu xabaar bu neex dem ca waar Real de Madrid bu ñu sukkandikoo ci Relevo waa Real de Madrid ñoo ngi bàyyi xel bu baax doomu piiba bi tudd Frimpong nekk ca Bayer Leverkusen gone gi latéral droite bu mën la muy def la li jaaxal waa Real moo di